إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عظيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم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 الذي لا إله إلا هو وصلى الله وسلم على نبي الرحمة ناصر الحق بالحق طلعة الحق بالحق الهادي إلى صراطه المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، نيجي واخ الحمد لله دي سنتا ديال ابو باخ بروم بي بام di bi ci weeru koor ba léegi ñu nekk ci téereem bi di ci fàttalante nañu ko sant yàlla am na ñoo xam ne nattu na leen ñu ngi ci leneen loo xam ne neexul yàlla te mënuñ ci dara hmm? kon ñun bu ñu xiiree ci ñu nekk ci loo xam ne neex na ko te mooy waxam ji nga xam ne ñun mooy kawteef bi gën a rëy ci ñun loolu ak sant yàlla la bu baax a baax pour mu dolli mu mel ni ñu ngi woon ak yow ci suuratul xajji waaye démb ñu jëloon benn xaaj bi tey mu dese ñu benn xaaj benn xaaj boobu fa lañ war a commencé fàttalante ak yow ba fu soob borom bi subhanahu wa taala borom bi waxoon ne inna allaha kadalika saxaraha lakum li tukabbiru llaha ala ma hadakum wa bashir almuxsinin tey ñu war a commencé inna allaha yudaafiu an alladina amanu inna allaha laa yuhibu kulla xawaanin kafuur nee na yow boo gëmee yàlla yàlla moo lay défendre ba jëf yu bon yi nga xam ne yéeféer yaa ngi koy def wala ñi la contrôle ñi bañ ñu ngi koy def pour mu war a ñëw ci yow yàlla mu ne moo koy défendre ba du yegg si gis nga bu fekkoon ne nekkul défendre yàlla eh, kon mu doy waar hmm? waaye yëgal ne koo gis am na koo xam ne tey bu sañoon moom mu dee hmm? wallaahi ndeysaan am na ko bu sañoon te du yendu mu ngay def lu mu man waaye mu ngay def lu mu xam waaye yàlla nag moom moo ci ànd nag mm-hmm. yàlla moo ci ànd kon nga jàpp mucc gi ngay mucc bul jàpp sa njàmbaar waa jàppale jàppal ne borom bi subhanahu wa taala moo la wéer ak ndimbalam moo tax il faut nga am ndimbal parce que bu dul ndimbalu yàlla yow doo mën a nekk yàlla bu la bàyyeeg nit ñi rek dina doy waar lool kon inna allaha yàlla yudaafiu mooy défendre an alladina amanu ci gaa yi nga xam ne gëm nañ yàlla maanaam ñi gëm yàlla yàlla moo leen di jëlal paar inna allaha yàlla laa yuhibu du bëgg man ah, kulla xawaanin bépp workat kafuurin kay weddikat udina digalees na nag lilladina ñeel gaay nga xam ne yuqaataluuna ñu ngi leen di rey te mooy julit ñi waa yàlla nag jox na leen ndigal pour ñu feyeku bi annahum ci ne naka ñoom zulimu tooñees na leen wate wa inna allaha naka yàlla la qadirun ko am kàttan la ala nasrihim ci dimbale leen alladina gaa yi nga xam ne uxriju génneef na leen min diyaarim seen kër ya bi xayri xaqin ci lu dëgg illa an yaqulu lu seen wax rek ne rabbuna sunu borom di allahuma yàlla ñoom daal li lay wax hmm? rabbuna allah ñu génne leen walaay ndeysaan waaye walaw laa dafaullaa bu fekkoon ne nekkul jëñ yàlla mooy défendre yàlla an naasa nit ñi bi seen leen bi baaxdum ci leen fekkoon ne nekku ne yàlla mooy fegal ñenn ñi ñenn ñi ah kon lahu dimat kon mabbu sawaamixun eh, eh, néegu labbe ya wa biyaxun ak néegu chrétien ya wa salawaatun ak néegu yahud ya masaa masaajidu ak néegu julit ñi hmm? sawaamix ñu ne ruhbaan yi lu mel ni soroor ñoom lañ tabax ci kaw ñoom foo la ñu nekk duñ am soo duñ am dara jaamu yàlla la ñu def biyaa mooy église boo xam ne nasaraan mu ci julli salawaat mooy kanaïs yi nga xam ne yahudi ñoom ñoom ñoo ci julli mu ne bu fekkoon ne nekkul ne yàlla mooy défendal ñeen ñi bu musal leen nee na kon la xuddimal sawaami wa biya wa salawaat wa masajid jàkka yi nga xam ne yus baram barab yooyu nga xam ne yus karu def na tudd fii haa ci barab yooyu ismullahi tur yàlla kasiran lu bëree bëri waaye wala yan suru na dina dimbale allahu yàlla man ka nga xam ne yansuruhu moo koy dimbale ci diinam ja waaw waaw mu ne yàlla dina dimbale koo xam ne moom moo koy dimbale ci diinam ja mooy ku nekk ci diina yàlla ji di ci sonn pour diina ji taxaw yow yàlla moo lay jox dimbal waaye ku nekk ci yoonu yàlla di ci sonn ngir yoonu yàlla bu mu rax dara yow yàlla moo lay jox ndimbal inna allaha yàlla la qawiyun ku am kattan la azizun ku not di nguuram la yàlla alladina gaa yi nga xam ne immakkannaahum dem saxal leen fi àll ci suuf ci dimbali leen ci seen kaw noonu aqaamu ñoom dinañ taxawal asalaata julli wa aatawu dinañ joxe azakaata azaka wa amaru dinañ digle bil maaruf ci lu baax wa nahaw anil ah, dinañ tere mën munkar ci lu bon mu doon wax ne usina lilladina yuqaataluna bi annahum zulimu mu ne ñooñee nga xam ne dañ leen a tooñoon ci ñoom waxuñ dara lu dul yàlla mooy sunu borom mu ne ñooñ de man bu fekke ni man saxal na len ci suuf ci dimbale len ñom dinañ julli dinañ joxe asaka dinañ jël lu baax dinañ tere lu bon walillahi yalla mom haqibatul Wiri wiri mbir yeb wiri wiri jaari ndari yalla moko mom mune mbir yi fu mu ci yar rek lay mujjedi walillahi haqibatul umur wa in yukazibuka mu lay defal yow mi nga xamne dañ lay wote wala ngay wax ñu weddi ndem dañ laa fenloo faqad kasabat fenlo won nañ qablahum lu len jitu qawmun nuyu nit yonti yalla nuhya wa aadun ak nit yonti yalla huud wa samuud ak nit yonti yalla saalih ya wa qawm ibrahim ak nit ibrahima ya wa qawm luutin ak nit luut ya wa ashaabu madyan ak nit yonti yalla shuayb ya to kuziba kuzziba weddi woos musa muusa muusa eh, waa ñi yëpp nag lii da ko defale rasulullah won ko ne buñ la weddee nekkul ne yow rek lañ waaye weddi ji yàgg na fi waaye fa am laytu mu ne ma muñandiku lil kaafiri na ñeel yéeféer yi summa axastuhum topp ma jàpp leen fa kay fa kaana nakiir fa kay fa kaana naka lay nekkee nakiir yi ay ay inkaar ñoom nan lañ may weddee xanaa ñoom gisuñ li xew lii yëpp ba pare ñoom ñu ma weddi fa ka ay yéen min qarya faka ayun aka bëri min xarye ci dëkk yoo xam ne ahlaktuha alak naa ko de mooy waa dëkk ba wayete fekk waa dëkk ba waalimatu ñu de waay tooñ ci weddi gañ weddi fa hiya dëkk ba nag xaawiyatun aji rapp la mooy aji daanu la ala urushiya ci tabaxam ya wa biirin waaye aka bëri ay teen yoo xam ne muattala teen yu wéet la gis gisatoo fa kenn ndax waa dëkk ba yëpp dee nañ wa xasrin ak étage yoo xam ne machidin yu jógoon ca kaw la waye tey mu mujj na ràpp dara newu fa afalam yasiru xana ñom doxuñ fil ardi ci suuf manam buñ doxon ci suuf ñom yeferi xol li xew kon buñ doxon fa dara nekk moy fa saabu soosu takku lay nekkee lakum ñeel leen xulubun xol yoo yaqiluna dañ amé xel ci mom wa azanul ak nopp yoo xam ne yasmaxuuna dinañ ci mom way fayna ali mbir la ta'ma du gis de du gumba al absaru bedde walakin way li gumo moy ta'mal qulub Euh, xol moy gumbo walakin waaye tamad na gumbo al xol yi alati xol ya nga xamne fi sudur ñu ngi si biir dënd ya mune ne du gumbo de da lay nga gis ko xamne bu ya nga ne xajj waaye mom du gis de hmm wa wa da nga gis ko xamne ñu na gumbo gi de mom daf ñoo jaaxal ndax mom kat mu da gumbo pare waaye mooy bof jakka ja moy dem moy ñew moy def nangam ak nangam du hmm, hmm. qul ya fatartiku kon mu ne mu ne bët bi du gis waaye bëtu xol bët bi du gumbo waaye bëtu xol mooy gumbo de wa yastaajiluunaka dene sàkkoo yàkkamtiloo bil azaabi ci mbugal waaye wala yuxlifa du wuute de allahu yàlla waadahu ak dëelam ci wàcce mbugal googu wa inna yawman naka benn bés inda rabbika fa sa borom te mooy bésu bésu yamul qiyaam yi ka alfa daa mel ni junneexat mi maa taxu duun ci la xam ne ñun ñu ngi ko lim ci àdduna benn bés yowmal qiyaam mooy tolloog ñun suñ junnee xat allahu akbar benn bés wakaay yéen aka bari min xariyat ñu ci dëkk boo xam ne am lay tumuñ na di ku naa la laxaa ñaal dëkk ba de te waye dëkk ba waale muy aji tooñ ci weddi gam weddi summa axastuwaa topp jàpp naa ko mooy waa dëkk ba wa ilayya jëm na ci man almasiru mu juwaay bi de xul waxal ne yaa ayyuhan naas eyéen nit ñi innama ana xam leen ne man nadirun xuppaatikat laa win wu bir lakum ñeel leen de fa ladina gaa nga xam amanu gëm nañ waa amilu te ñu jëf asaalihaat jëf ju baax lahum ñeel leen maxfiratun ak njéggal wa ak wërsëg karim gu tedd te muy aljana de wala dina gaa yi nga xam ne saaw dañuy dox fii ayatina suñu alquran ji di ko yàq ñu ngi yaakaaru ñoom muajizina waaye raw lañ de waaye ulaayka ñun le gaa yi jahim ñooy waa sawara ñoom rawuñ de wa ma arsalna yónni wuñ nag min qablika ci loo xam ne njëkk na la mi rasulin ci yonenti wala nabiyin du caagane ab nabiyu illa isa tamanna hmm? ndare boo dafa jàng mooy ndare boo dafa mébét lay firi luxa bi waaye ndare boo dafa jàng rek alqaa daal di sànni a cheytaanu cheytaane fii umniyatihi ci biir njàngam googu loo xam ne bokkul ci la war a jàng hmm? Eh, mu ne mosuma yónni ab yónent loolu li mu rek mooy nit eh, bu ko bu ko yàlla joxee cër na bàyyi xel seytaane seytaane dafa am doole hmm. ak cër bu la yàlla jox mu ne bàyyi xel seytaane dafa doole boo ko deful mu yàqal la eh, fii dañ fi nettali benn benn xissa xissa bi mooy loonte borom xam-xam yu bëri la dañ koo jam d'accorduñ ko mooy boo demee euh, booy jàng maanaam yonent bi sallallahu kay daf doon jàng ci suuratu mi ñu ne bi ba ci laataag Uzza ak Maata saasul uxra léegi mu ne seytaane jax-jaxal làmmiñ bi làmmiñ bi ne tilkal xaraaniqil ula wa inna shafaatuhunna la turja mu ne bi mu waxee laataag Uzza mu ne yooyu de ay neen la waaye seen ramu moom des na ko yaakaar bu mu waxee loolu nag yéeféer daal di bég ñu ne yonent bi sax sax bi mu waxee loolu dafa sujjóot saaba yi sujjóot ñoom ñëpp ñu sujjóot léegi yéeféeri kontaan ne ah Muhammad kat moom tey wax na si ci suñu yàlla yi loo xam ne mosu ko wax ndax màggal na leen tagg na leen léegi naa alxuraan ñëw ne ko fa yansaxu llaahu maa yulqi shaytaan summa yuhkimu llaahu ayaati yi gis nga ko wallaahu alimun hakim Eh, histoire bi donte ñu ngi koy jam waaye am na maanaa te tamit yàlla nag mën na loolu waaw waaw loolu dafa ko ngir Muhammad waaye def ko def ngir jàngale xam nga am lu bëree bëri mu ngi xaw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye jàngal la ci ñi si gannaawam daf laa wax ne bul naago loolu ndax boo naagoo seytaane yàqal la waaye gis nga yonent bi salawaatullahi alayhi gis nga ko ah ci la laa nekkoon sax eh. ok mu ne seetaan naa ko doy waar laa ilaha illallah ah aouzu billahi shaitan rajim li mu wax fàttaloo na ma ko de gis nga ko illa iza tamanna alqa shaytan fi umniyatihi waaw ma nekkoon ci ne loola loolu waa kay ma ne loola lu war a mën a nekk la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla seetaan na seetaanu na ko ñu njëber ko ba jàpp ko njëberkat bi mënta jàpp yonent bi salawaatullahi alayhi waaye ñun lay ñun ñun lay kiyal ñun lay jàngal pour ñu mën a bàyyi xel ci lu bëree bëri waaye lii tamit yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu waxee seytaane fëkk làmmiñam wax loo ko leneen jibril xamal ko ya yow li li nga wax nag yonent sallam delu wat manam mu tiit dal di jàq ci lolo lol alquran ne fa yansaxullaahu ma yulqi cheytaan manam ñu folli mo ñu genné baat yo nga xamne ne waxon nako na ko summa yuhkimullaahu topp yàlla saxal ayati yi aya alquran yam joxon muhammad hmm gis nga ko donte nag tabaarakallaahu wax joju nga xamne yunus yonent bi wax nako ñu ne ñu bare bare ci borom xam-xam yi dañ cee dañ cee dañ cee werante ku mel ni ibnu xajar al asqalaani moom moom moo saxal ne mu ne loolu wér na waaye ak yeneen borom xam mais moom moo ci gën a nag mu ne mu ne loolu lu wér la waaye li gën a bëri dañ ko dàq boo demee ci Seydi Hadji Malick ci xilaas ba mu tamit da ko net nitale pare mu ne waaye wax ji moom euh, tabaarakalla amul wéeru waay bu dëgër hmm? dégg nga ko kon mu ngoog waaye boo xoolee dafa mel ni aaya bi moom histoire bi dañoo méngoo lool mooy illaa ida tamanna alqa cheytaanu fii umniyatihi waaye boo demee ci sayul buxaar yi ñu ne sujjóot bi am na waaye ñoom li ñuy weddi mooy waxul tilkal araniqul ula wa inshaalah turja mooy baat yooyu ñu bëree bëri baat yooyu lañuy la ñuy bañ waaye ñu ne jàng na sóotu naj mi daal di sujjóot saabay sujjóot ànd ak moom loolu moom xalis wéral na ko waaye nag problème ba koy mooy mooy baat yii ñu wax ndax am na wala déet fa la mbir ya nekk Hmm? dégg nga ko euh, mu ne kon mosuma yónni ab yónenti rek ndere boo maanaam seytaane am naaw di ko jax-jaxal parce que mboolem ku ko weddi rek seytaane nga àndal kon seytaane nga ànd ak moom waaye buur ne ba xewee nag fayen sagul laa maa yulqi seytaan su ma yuhkimu laa ayaat yi ndax wallaahu yàlla alimun xam na la seytaane euh, sànni ci ci xelam euh, ba mu wax ko mu génne ko te yàlla xakimun ku tëral mbir la fa mu yelloo la yajaala dana def yàlla dana def maa yulqi seytaan la seytaane di sànni ci xelu yonent bi fitnatan mooy ak nattu hmm? kon yàlla daf ko def loolu ngir lan ngir nattoo lilladiina ñeel gaa nga xam ne fii quluubihim nekk na seen xol ya maradun ak feebaru naa feq ak sikki sàkk wal qaasiya ak ñi nga xam seen xol ya dafa wow xulubuum seen xol ya ba ba ñu nang dëgg yàlla ne damaa def loolu doon seet ñan ñooy naa feq yi ak ñiy dëggal kon kon loolu àdduna rek la wa inna zalimin naka ñu weddi yàlla la fii shiqaaqin ñu ngi sikki sàkka baidin gu sëri dëgg wala yaalama ak ngir na xam alladina gaa yi nga xam ne uutu joxees na leen al ilma xam-xam mooy wéetal yàlla ak alquran annahu naka alquran ji alxaqu mooy dëgg min rabbika bàyyee ko sa borom fa yuminu ba ñu mën a gëm bii ci alquran fa tux bita daa di dal mooy toroxlu la wuñu yàl yàlla xulum seen xol ya wa inna laa naka yàlla la haadi alladina aji jub aji gindi gaay gaay nga xam ne la amanu gëm nañ ila siraatin jëmee lañu ci yoon mustaqim wujub kocc wala yazaalu du dëñ alladina gaay nga xam ne kafaru dañoo weddi fii miryatin ci sikki sàkka minhu ci alquran li nga xam ne seytaan da koo sànni woon ci xoloo mu dindi ko mu ne gaay ba tey ñu ngi ci sikki sàkka de xataa taatiyahum ba dikkal leen asaatu bés penc baxtatan ci mbetteel aw yatihim wala dikkal leen azabu yawmin boo xam ne aqimin bés bu tàng jër la hmm? ñu ne azabu yawmin aqim mooy bésu badar ndax laa xayra fii ni mu ñàkkee yiw loolu moo ñu tudd ñu tuddee ko aqim comme koo xam ne amul doom xam nga aqim mooy mooy ko amul doom waaye bés bi tamit ni mu ñàkkee yiw ci yéeféer ñi moo lañ tuddee ko aqim ñu ne wala boog mu ñu ne yowmal qiyaam la ndax yowmal qiyaam bés boobu moo amul guddi hmm? déedéet maanaam balaa bés boobu mu ne guddi du ñëwaat maanaam amatul jant bu soo amatul leneen ñu ne kon mooy azaabu yawmin aqiim waaye mbugal la boo xam daal mbugal bu métti lay doon mu ne ñam duñ denc seen sikki sàkk googu ba bés boobu dikkal leen almulku nguur yow ma isin yow mal qiyaam lillaahi yàllaa ko moom de yaa ko mu dina atte baynahum seen diggante de diggante yéeféer yi ak julit ñi fa ladina gaa yi nga xam ne amanu gëm nañ wa amilu te ñuy jëf a asalihaati jëf ju baax fi jannaati naayim ñu ngi ci aljanaay xiwal jëde wala dina gaa yi nga xam ne kafaru dañoo weddi wa kazzabu te ñu weddi bi ayat naa ci alquran foo laaka ñun le gaay lawum ñaan na leen de azabun bugal mu hiinin mu ñu méttal mu hiinin mu ñu doydal wala dina gaay nga xam ne hajaru fa ñoo gàddaay fi sabilillahi ci topp yàlla fu ma qutilu topp ñu rey ci topp yàlla googu ñu topp yàlla aw maatu wala sax ñu dee ci cent kenn rey leen la yàlla suqannahumullaahu yàlla dina leen jox wërsëg risqan wërsëg boo xam ne way na laa naka yàlla law moom yàlla xayru raziqin moo moo gën ci ki joxe wërsëg de yàlla ne boo gàddaay dem ci yàlla gàddaay dem ci yàlla nag mooy rek nga topp yàlla jubal ko am na ñoo xam ne nag loolu mer naq na leen bañ rey la tiir la bal nga dee gàddaay dem ci yàlla mooy yow nga nekk nitu dëgg di wax dëgg rek ñu ne kii arrangé wul ñu daf ñu yàqal ñu yónni ay nit pour ñu rey la ñu rey la yow wala sax nga feebar dee yàlla ne la muñal dinaa la jox wërsëg boo xam ne wërsëg bu rafet la kon gàddaay dem ci yàlla daal mooy nga nekk ci dëgg ak façon boo fa mën a nekkee na nga nekk ci dëgg di doxal dëgg buñ la ci reyee yàlla mu ne dinaa la fay aljanna boo boo fa dundee tam ba dee yàlla dinaa la fay aljanna kon baax na <coughs> lay du xilan nahum daa leen dugal mu du xalan duguwaay boo xam ne yar daw nahu ñoom dinañ ko gërëm yàlla ne keroog dina leen jox kër yoo xam ne yéen da ngeen ko gërëm te weñ na laa nag yàlla la alimun aji xam la xalimun ku dëneeru la gisoo ko hmm? ngoog eh, wa inna laa la alimun xalim zalika wa man aaqaba bi misli ma aqaba bi summa bugiya alayhi la yansurannahu llah inna allaha la afuwun gafuur dañuy wax ne sababu sababu nuzulu aaya boobu yonent bi dafa am benn sariya boo xam ne daf ko yónni woon waaye mu tombe weeru tam xarit eh, boobu tam xarit des na ñaari fan yéeféer yi xam nañ ne tam xarit jullit ñoom duñ ci xeex ñu kar leen ñenn ñi yéeféer ne nañ xeex ak waa kër Muhammad rey leen ndax ñoom duñ xeex ak eh, duñ xeex ci weer wi le ñu dajee jullit ci cokkaas cokkaas leen jullit ñi leen ñun de duñ xeex ci Muharram ndax dañu ko tere waaye ñoom ñu ne mukk il faut ñu xeex bu mukk ba leen not jullit ñu mujj nag fipp ñu tamit fayeeku daal di xeex ak ñoom yàlla ne xeex googu ngeen ñoom ci weer amul dara baal naa leen ko ndax dañ leen a tooñ yaa kon li muy jàngale mooy kuñ fekk ci sa droit tooñ la mu ne fayul hmm? kuñ buñ la bëggee rey reyal hmm? waaw yonent nee na salawaatullaahi wa salaamu alayhi maam nit bu ñëwee bu ñëwee bëgg a jalgati suma kow bu ma tooñ rey ma nu may def mu ne xeexal ak moom mu ne bu fekkee moom rey nag mu ne yow bu la reyee nga aljana nga jëm bu dee maa ko rey nag mun ne yow boo boo ko reyee moom safara la jëm hmm? kon nit bu la ñëwee bëgg laa eh, tu tuutal bëgg laa xeeb xeexal ak moom léegi nag xeex bi mën na nekk ci wax mën a nekk ci jëf bu la bëggee tuutal ci wax mu ne waxal yow yow tamit xeex ak moom bu bëggee tu tiital ci jëf waxal xeex moom hmm? comme comme euh, dox boobu xaw ma mambay ñaa lañ koy wax xaw ma ni mu defoon taalibe yi ah waaye li ko gars yi wax rek doy na waaye lu ko waaye mën a wax rek xeex ci xeex bi la bokk ndax moom daf ñoo yàpp léegi ahlu quran ñooy lekkati sobe hmm? léegi mu ne moom alal yi koy fay moom seexlu na lekk ko moom di ko lekk moom buggu ko waaye waaye ndongo daara la koy jox ah xoolal wax ju ñaaw jooju waaye moom xamul ne ab mbaam xuux la moom moom taalibe yi dañ koo seexlu moom yëgul lool waaye taalibe yi seexlu nañ sax lekk moom waaye këram sax seexlu lañ koo dugg moom xamul moom jëmmu sobe la moom yëgul lool waaye lu eh, allahu akbar kooku loo ko loo ko koy xeeb hmm? bu ko defee loola nag kooku maanaam ku la ku la dikkee noona yow dikkee ko noona hmm? loo ko mën a wax wax ko ko parce que moom moo jalgati ci sa kaw indi ay kàddu xeebaange teg la ko kooku bu doon yoon am na tey yoon bu doon dox ci réew mi moom lañ koy jëli waaw ndax moom dafa bëgg ay njabootam lool ba yéenewu leen alal ju bon waaye bañ ahlu quran trop ba yéene leen alal ju xaram jooju hmm? ndax alquran ñooy lekkati lu xaram moom kan moo ko ne alquran daa daa soxla ndimbal ci moom alquran bu ñuy soxla ndimbal ci jullit lañ koy soxla jullit waaye ñun soxlañ ko ci yéeféer Hmm? te yéeféer mooy yéene loolu ahlu quran moo tax ahlu quran alalam ci hmm? lu ci waay mën a def na ko ci def zalika loole mooy xissa boobu wa man aaqaba wala nga ne zalika luy mbir wa man aaqaba ku fayu na bi misli ma uqiba bihi kem nañ ko tooñee summa bughiya yi topp ñu ñu bew ci kawam bughiya alayhi mooy lu ñu mën a def hmm? mu bew ci suñ kaw wala ne am am la maanaam ba adresse ñu ñun ñu ñu bon ñi moom muy ku baax ki mu ne kuñ def loolu mu ne waxal yow tamit feekul ndax la yan surannahu la mu ne yàlla dina ko dimbale boo feyoo yàlla moo lay dimbale inna laax yàlla la la afuwun baalekat la kaddu yi nga waxanteeg moom ak xeex bi nga jëfanteeg moom mu ne loolu yàlla baal na la ko donte bu fekkoon ci heure boo xam ne yàlla dafa am lu mu la fa digal nga war ko def waaye mu ñëw attaqué la mu ne fayul bu dee ci wàllu xeex la nit fekk la fa xeexal ak moom julli jot na ba julli wooyu mu ne yàlla dina la baal julli woogu ndax xeex bi ngay xeex pour défendre sa bakkan boobu hmm? inna allaha la afuwun gafuur boobu noonu ci weeru tam xarit la woon weer yooyu dafa xaraama xeex julli ñi xeex ñoom mu ne yàlla baal na leen xeex ngeen xeex ci jëmu weer yooyu boo xam ne yàlla dafa jox ndigal nga war ko def nit ñëw bëgg la jalgati sa kaw toroxal la mu ne xeexal ak moom hmm? donte xeexin ba yàlla gërëmu ko waaye mu ne yàlla mu ne baal naa la na ko defee te gërëmu ko ndax da dañ laa tooñ moo tax nga defee ko noona hmm? eh, inna allaha la afuwun gafuur zalika loolu ndimbal googu yàlla wax bi anna laa ci ne yàlla yuliju la mooy tàbbal guddi fi nahaari ci bëccëg wa yuliju nahaara mooy tàbbal bëccëg fi ci guddi waana laa yàlla samiun ku dégg la ñaari julit ñi basirun ko gis la zalika loolu nag bi anna laa ci ne yàkkat naka yàlla huwa moom alxaqu mooy buur ak dëgg wa annama yaduuna naka lépp loo xam ne ñu ngi koy jaamu min duuni yi te du yàlla xoo loolu albatil moo di neen de wa anna laa yàlla huwa moom alaliyu mooy aji kawe alkabir mooy aji màgg alam tara xanaa xamoo ne anna laa naka yàlla anzala moo wàccee mina sama asamaan maa an ndox mu ne xanaa xamoon yàlla mu wàcce ci asamaan ndox fa tus biwul arda maam suuf si mujj mux darra da ji ci ay gàncax ina laa naka yàlla latifun ku ñeewante la xabiirun ku dëñ kumpa la mooy xam na lu nekk seen biir xol yi de lahu yàlla moom maa fi samaawaati lu ci asamaan wa maa ardi alu ci suuf wa innahu yàll wa innahu yàlla loo hmm? wa inna allaha wala wa innahu wa inna allaha <laughs> wa innahu allahu la huwa hmm? kon wa inna allaha naka yàlla la moom alxani ma aji woomal walis mbindeef yi yàlla xani te rinam ji fi mu ko jëlee du benn mbindeef moo ko dimbale du benn mbindeef moo ko jox hmm? alhamid mooy sant ñi nga xam ne ñoom ñu ngi topp ci ndigalam alam tara xanaa xamoo ne an na yàlla saxara te moo tàggat lakum ñeel leen maa fil ardi lépp lu nekk ci suuf de minal bahaim mu nu yëgoo lépp lu nekk ci suuf nga ko jëfandikoo yàllaa ko tàggat de waaye yàlla jox la ko doole joo xam ne fekkoon tàggatu ko kon mu duma la waaye wal fulku moo tàggat gaal ya tajri yoo xam ne dina daw fil baari ci biir géej gi de bi amri yi ci ndigalam wayum siku a dina jàpp moom yàlla mooy jàpp asama asamaan de an taxaa bi maanaam allah taxaa ba ñàkk a daanu xalaal ci suuf illaa bis nii ci ndigalam de hmm? mu ne yàlla mooy jàpp euh, yàlla moo tàggat lépp lu ci suuf waaye yàlla moo tàggat lépp lu nekk ci géej waaye rek moo tàggat géej ba ngeen mun see liggéey yàlla fekkoon tàggatul géej kenn du dugg ci biir géej hmm? waaye yàlla moo jàpp asamaan si ba asamaan euh, daanuwul ci suuf waaye moo jàpp suuf ba suuf xarut waaye loolu yëpp mu nga def bi is nii ci ndigalam hmm? inna laa naka yàlla la raufun ku ñeewante la ku bëri yërëm la binnaasi ci nit ñi wa huwa yàlla mooy nga xam ne ahyaakum moo leen dun moo leen dundal de ci sos gi gim leen su ma yumiitukum topp moo leen di rey ci ba seen dig jeexee su ma yuhyiikum topp moo leen dundalaat de ci dekki inal insaana naka nit nag moom la kafuurun weddikat la de li kulli ummatin te wu ne mooy mbooloo mu ne jaal naa ñun yàlla def nañ yàlla leen man sa kan sharia mooy jaamuwaayu yàlla mooy kenn euh, xeet wu ne defal na la man sak mooy jaa foo sharia boo xam ne fa nga jaamoo yàlla ba mu ñëw ba ci suñu xeet bii di xeetu si doon amat ñun ñu leen sharia islamiya noom naasikuhu waa jaamoo lañ ko yàlla de sharia boobu falaa yunaazi'unnaka maanaam buñ la sonal mooy buñ ñoddoog yow fil amri maam ca mbir ma de hmm? mooy ca mbiram rendi ba ñuy wax ne li yàlla rendi loolaa gën a yeey ci lekk ko de wadu na nga xoote ila rabbika jëm sa yooni borom naka naka yow la ala hudan yaa ngi ci njub mustaqimin njub kocc wa in jaadaluuka dem dañoo daggi santeeg yow foqul waxal ne allahu yàlla aalamu dina mu xam bi ma taamaluun ci xam ne yéen a ngi koy def allahu yàlla yaa ko muy àtte baynakum seen diggante de yawmal qiyaamati kiroog bés penc fii maa kuntum ca la ngeen nekkoon taxtalifu di wute fii de alam taalam xanaa xamoo ne laa yàlla yaalam dina xam maa fi samaayi lu ci asamaan wa adeeg suuf de ina zalika naka loolu nag ñu ñu tudd fi kitaabin nekk téere bu ñuy wax lawul mahfuus de inna dalika naka loolee yasirun lu yomb la di ala laa ci yàlla de wa yaabuduuna ñu ngay jaamu min duuni laa ci ku dul yàlla maa loo xam ne lam yunazil du wàccee bii jaamu googu sultaanan benn lay wa maa ak la nga xam ne laysa lahum de di la ñeel bii ci loolee alamun a xam de wa maa li zalimina de di ñeel tooñkat yi min nasirin ci jënn aju dimbale wa isa tutla ndem jàngees na alayhim ci ñoom ayatuna suñu alquran ji bayinatin mu di leer nañ taarifu danga xam nag fi wujuhi ladina ci kanamu gaa yi nga xam ne kafaru dañoo weddi almunkara ak weddi hmm? wallahi ndeysaan am na foo xam ne boo fa nekkee di waxtaan eh, ci biir ci biir waxtaan wi taarifu fi wujuhi ladina kafaru almunkar am na ñoo xam ne bon dañuy mer parce que li ngay wax arrangé wul leen hmm? seen kanam yi du am benn misaal boo xam ne day woon a gërëm nañ وأنا كو خامي بوكو خولي داغي خامي لي غي واخ ساف نكو غيرم نكو وأنا كو خامي بوكو خولي داغي خامني مام كي لي غي واخ موم ميرنا سي لول تعالو في يولا كفر المنكر هم والله ندسان مون ييفر دغ بو جانغ سوم القران داغي غيس كلام غا داي نيك هم داي بوغا جوك دو بوغا توك هم ييفر دغ نون لا موتاخ نيت نيت غي واخ جوليت لا تفيك ييفر لا نيت كو خامني القران رك لاي باغ فو القران فو نيو جيتال القران دا فا توك fu ñu waxee alquran du fa toog fu ñu leeralee alquran du fa toog fu ñu ah, fu ñu nekk ci alquran du fa toog waaye moom daal ci mbir àdduna rek waaye buñ minute mënu ko am jotaay bii ñu tasir alquran déedéet hmm? kooku lan la waaw yéeféer la du julit hmm? moo tax may wax ne quatre quinze pour ah, quatre-vingt-quinze pour cent yi ñuy wax nañ dini quatre vingt ñu bàyyi cinq yi Sénégal <laughs> tabaarakallaahu wala rek nga xol juma yi fi nañu ñu ngi tafsir ci wéru koor bi conférence yi bari na nangam nangam nangam waye dara tous waye demal ci buwaat yi daa tel hmm te pourtant ay mohammed ak ibrahim ak rek nga fay fek xalaatuñ julit de xalaatuñ def lu neex te ñu laaj wa ko ak alam julit la dede julit moy ki nangul yalla wax bëgg alquranul karim alquran kenn mënu ko bañ nekk julit sa ko bañ ab yéfer o hmm? wa min alaamati mahabati nabi mahabatul quraani bokkoon na ci mandargaay bëgg yonent bi bëgg alquran yonent bi salaam boo ko bëggul ah dëgg dëgg tabaarakallaahu ne ne ko julit kon boo bëggul alquran doo julit yéeféer nga moo tax ma wax ne yéeféer yi bëri nañu de hmm? parce que am na ñoo xam ne bëgguñu alquran bëgguñu alquran duñ déglu alquran duñ ko jëfee seen yoon neew ci ñoom daal nañ na ñun ajulit lañ rek jeexal nañ ci loolu daa nekk julit jullit boo xam ne xaraf faraanu ci biir dën dënam alif xamu ko lu ngeen foog am na ñuy xëtër xëtër fii biir ay ba jaaw boo leen tiimoon baa wuñ ko baa siin hmm? te noonu lañ fa yéene dee hmm? baa siin xamewuñ ko la wax ñu xawoon naa jàng sax mais xam nga rek parents yi bon xam nga rek parents yi parents yi lu ñu def ba parents defee yow ba nga demee ba mën mu kàllaf nga waroon jóg xam ne julit laa te bu ma jàng alxuraan lu ma julit nga dem jàng alxuraan effort bi nga def ba am diplôme bu ne boo ko defoon xam alxuraan hmm? naxante fi bari rek waaye ñu bari duñ julit julit daf daf lay jaral nga dem jàngi xam sa diine góorgóorlu waxuñ nga am xam-xam ba géejal waaye nag fexe ba xam say fardu ay ni moom kuy julit ku ne da nga ko war a def waaye julit boo xam ne bu mu ne la ban salaam xamoo xamoo luy ban salaam salaam nga ne nga yaakaar damay lépp hmm ah fatiha wax nopi falak ñewagul nasi ñewagul nga ne man julit la ah man de xawma nu nek man xawma da am ben tir bo ci xawma afon dewe rek hmm man numa nek julit na ma de kon demal nga jangi bo demé jangi xam fatiha xam nasi xam farata julli xam ni ñu jappé ndox mu baax mu ta japp ci julit doga wir talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah te minal mahdi ilal lahdi bul ma wax ne mag laa de matuma jàng saaba yëpp ci mag lañ jàng 40 ans 50 ans rek lañ jàng hmm? ba xam li ñu xam ku la tere jàngi hmm? toog di lëfër lëfër rek buñ tee nga teesa kuruj kuruj kuruj te ñi mu yàlla nga fa def dafa fa dara hmm? bu ñu jàng kaamil yaa ngi ca gannaaw bu ñu naan nangam bu ñu lim nga yëg sa kurus gi te yow bu ñu saadifaat yi juróomi téeméer nga commencé xëcc alxuraan xam na ne moo ko doon saadifaat yi ah lay ba lolou julit nañ ci baye xel mbokk mo gis xir ko mu dem wuti alquran jang alquran alquran mooy tax nga nek julit ci alquran dem buñ ko jang sa xol bi d'accord ko sa xol bi geureum ko waye fek ñu ngi jang alquran sa xol di bañ nek ko julit hmm? fek ñu ngi jang alquran mu lay tak mu lay tangal nek ko julit hmm ben keur guma waa ji am fa sax semaine mu ne mu ne naa génn këram ndax alxuraan da koy tànqal waaw alxuraan ji ñu jàng da koy tànqal cettt mhm. waaye musique di tànqalu ko rajo bi moom guddeeg bëccëg tinding tinding rek ngay dégg moom du fay waaye kaddu alxuraan nag moom da koy xatal ndeysaan cettt ko taarifu fi wujuhi alladina kafaru munkara ñoom yakaaduuna xaw nañ na di songu billadina ci gaa yi nga xam ne yatuuna ñu ngi jàngale ñoom ayat na suñu alquran ji moo tax gis nga booy booy waxtaan bàyyil xel de jëlal position boo xam ne ku la attaqué nga am noo ko def boo ko def rek <laughs> allahu akbar gis nga gis nga am na koo xam ne nii mu la mere mere goo xam ne ndax li ngay wax arrangé ko yaa ngi koy laal yaa ngi koy laal ci biir xol ba boo moytuwoo mu songu la hmm? waaye préparé rek bu jógee rek nga dóor ko benn coup mu wàcc nga ko ni sawtaan ji moo tax jàngal bu ne da war a jàng kalaate nag mbaa nga def taekwondo bu baax nga xam ne da ngay mun self défense bu baax bu ne bëreet nga am noo ko def dem sa yoon waaw hmm? kay yakaaduuna yastuuna billadina yatlu alayhim ayatina am na ñoo xam ne bu jàng alquran te tere ñu songu la ndax bañ la qul waxal ne afa unabbikum mu ndax du ma leen xamal bi charrin ci lu gën a bon min zalikum ci bañ alquran ñu ne ko ah, nga mu ne annaar mooy sawara mu ne xam nga loolu yëpp bon na waaye nag dugg safara moo gën a yées wa adaa te yàlla na ko alla dina gaa yi xam ne kafaru weddi nañ safara kan la ko yàlla dëxal ñu weddi yàlla te weddi yàlla mooy lan mooy bay alquranul karim wa bi sa bon na de almasiru mujjuwaay ba hmm? desal moo tax mag ñi kenn du ñoom dañoo baaxoon ñoom boo ñëwee ci ñoom nga ne ko ah, sëñ bi léegi yow laa yaakaar yaa suma sëriñ lim lay njëkk def mo jangal la ba xam ba nga xam fati ak sar jangala sadul fati jangala astaxfirullah jangala lenen ni ngay jullee nga xam ba salam xam xam salam paré duñ doora jox wir doñ la demal gor gor nga yalla hmm mais ñew ni rek comme ñun li xaw jamono ñew ni rek ñu la euf di ko mbolo dédé hmm dañuy fexé jangal ba nga xam parce que bo xamul nak li nga mëna a yow kon nooy nekké nooy nekké jullit benn talibé balaa nga nekk ab tijaan baa nga nekk leneen julit moo njëkk a pare te julit boobu li ko jiitu mooy nga jàng xam mën a juli bo xam ni ñu wooree xam ni ñu jafe ndax dañoo jàng beneen téere buy wax ne bu fekkee ne xamoo dara ci alxuraan xamoo dara ci ni ñu jàppee ni ñu wooree yëpp tamit baax na ba tey déedéet dañ cee ñaaxee pour nga dem jàngi ku jàngi danga nga xam parce que yow sa xel maa ngi def ne maanaam fànn bu ñu jàng ci beneen luxa ci beneen langage jàng ko xam nga ko mokkal nga ko effort boobu boo ko doon ci alxuraan waxuma far jàng sar de akwa nge mokal hmm kon bu len ken dogal ngant du ben ngant ken du julit ku wa qur'an do julit ne jangi waaw amna nak amna am na ko may déglu mu naan yaw yaw xanaa yaw julit ak nangam <laughs> mom mo julit de mom ma aljana mo safara way li li yalla wax rek lay wax hmm? e, julit bu jangul da muntene dedet wa ne ngay dugus na ci islam bi janguma way yaang ci medel jang bala yag rek nga xam liñu liñu wara luni xam bokku ci ñëpp amaa nag géejal ci xam-xam nak lool fadu fadu la bu ko ñen ñu defé rek wat na ñen ñi wa bisal masir mané ku weddi alquran sa muju way moy safara té bon na dé kon dé len nat nat ci alquran yonent nee na boo alquran té mënoo ko di nat nat di di di kuru di wax di iji di bolé mune yool ngay am yoolu alquran ji nga jàng waaye yoolu sonn bi nga sonn ci alquran noonu dañ la koy fayee yoon kon kay yow yaa yaa yool ki mokkal alquran ki mokkal da koy jàng rek dem waaye mi mi si nat nat yi te mënuloo ñu fay la ñaari yoon hmm? yoolu jàng bi ak yoolu sonn bi ci sonn kon demal jàng alquran yaa ayyuhan naas nit ñi duriba sa dees na masalun léeb fastamiu lahu déglu leen léeb hmm? léeb mooy inna alladina naka gaa yi nga xam ne taduuna la ñuy jaamu min duuni laa ku dul yàlla ñoom lay yaxluqu mënuñoo bindu zuwaaban weñ weñ xam nga weñ weñ yu naaw nii affaire yu naaw nii yàlla mu ne yàlla yi ngeen di jaamu te du yàlla wax leen leen ñu bindu weñ daf lay daf lay woon pour lu gën a tuuti ak lu gën a ñàkk solo mu ne ñoom nañ ko bind ba xam wala wi tamaxu donte ñoom ñëpp boole woowoon nañ lahu pour bindu weñ mënuñu ko bind Hmm? te wa in yas wa in yaslubhum bu fekkee dafa fëkk ci ñoom moo dafa rëkk ci ñoom azuba bu weñ chey an dara bi maanaa dañoo laal parfum euh, wala ñu taq dara wuñ bi ñëw naan loola naaw dem ñoom laa tanqisu ah mooy amuñ kàttan ci delloowaat loolu wuñ bi nangu ci ñoom hmm? kon kay ñoom ñoom munuñ dara gis nga ko yàlla joo xam ne manam bu weñ ñëwee jël ci yow dara to delloo ci waat weñ bobu sax far bay delloo waat nak lam jël ci yow la yastanqizuhu moy duñ ko mëna ci minuhu ci weñ ba hmm? ah kon kay daaw fa taalibu daaw fa ñàkk na fulla daaw fa bon fa lompañ na ah daaw daaw fa ñàkk xam bopam ak taalibu kay jaamu le mënut lolu wal matlubu ak kookee ñuy jaamu ñoom ñëpp a yem hmm? daw fa taalib wal matlub te ñoom de maa qadarullaaha màggaluñ yàlla xaq qadar yi dëgg-dëgg ak màggalam ndax bu ñu màggaloon yàlla kon duñ jaamu loo xam ne mënta bind weñ hmm? inna laa nag yàlla la qawiyun ku xam kàttan la azizun ku not junguram la allaahu yàlla yastafi mooy tànn ñal malaak ci malaaka rusulan ay yoranti wa min annaas mu tànn ci nit ñi ba tey ay yonent yi ina laa naka yàlla samiun ku dégg la seen i wax basirun aji gis la seen i jëf de yaalamu dana xam maa bay naay diim la seen kanam wa maa xalfahum ak la seen gannaaw wa ilallaahi jëm wa turjaaw des na delloo al a mbir yi ilallaa jëm ci yàlla yaa ayyuha alladina amanu yéen ñu gëm yàlla urkuu dee leen juli waay wasjudu dee leen sujjood waay waabudu jaamu leen rabakum seen borom te mooy nangu leen laa ilaha wa faalu def leen alxayra jokk mbokk alxayra saraxe alxayra baale laallakum ndaxte le yéen tuflihuna ngeen texe de wajaahidu na ngeen jihaad fillaa ci yàlla xaqa jihaad yi dëgg-dëgg jihaad ci yàlla mooy sonu leen li alaay la sonu leen ngir yëkkati baatu yàlla bi waaye jihaad lañ ci yàlla fi mu nii toll nii wax dëgg jihaad la hmm? ndax boo waxee dëgg ñu fekk la sa kër jàpp yóbbu tëj ndax dëgg ji nga wax bo waxe islam ju set ñu jàpp yobu tëj bo waxe la ilaha illallaa bu leer nañ ñu jàpp yobu tëj bo lako ay saga wajadu jaadu fi laahi hmm jihaadi tabakum mune mom yàlla mo len tan wa ma jaala deful aleykum ci yéen fi diine ci diine min xarajin ci benn xat-xat yàlla mu ne defuma ci yéen ci diine ci benn xat-xat mooy diine lu yomb la jafewul de man maa leen tànnal millata abikum seen diine baay ibrahim huwa ibrahim sammaakum moo leen tuddee al muslimin julit ñi min qablu njëkk alquran wa fii haza ak ci alquran ji sax nag li yakuna ngir nekk ar rasulu yonent bi shaydan di aji seede aleykum ci yéen yowmal qiyam wa takunu ngeen nekk yéen shuhada di waay seede ala naas ci nit ñi faaqimu na ngeen taxawal asaara julli mooy da leen sax ci julli duumu ala salaa da leen sax di julli waaye yow mënoo sax julli de yow yow fi maqaama mooy maqaama iqaami salaa taxawal julli tusbaar jot nga julli takkusaan jot nga julli timis nga julli gee nga julli yow fa nga yem nekk fa nag am na koo xam ne aqimu salaat mooy yow bul sërmalati foo toll del julli fa aqimu salaat alladina hum ala salatihim daa imuun nga yëg ci maqaam boobu yow foo toll da ngay julli boo nelaw sax laa digal nga julli boo yeewu laa digal nga julli faaqimu salaa wa aatu zaka foo toll del joxe am na koo xam ne day xaar nisaab doog a joxe azaka bu nisaab amut du joxe azaka am na koo xam ne dañ koo sant fu mu toll di joxe azaka moom wa aatu zaka ay zaka ay zaka zaka la ilaha illallah wa aatu zaka di leen joxe azaka wallaay hmm? am na koo xam ne fa mu toog dërëm xam ko dërëm waaye ñi mu ñàkk a joxe asak waaye dërëm bu mu des posam amu ko waaye bu xëyee sax la bi dépasse te te ñi mu ñàkk a joxe asak ah waaye yu tolloo fa de fa nga tollu mooy boo amee alal nga am nisaab nga joxe ko hmm? loolu nga xam ci asak waaye am na koo xam ne moom lu joxe lool moom la ca xolam ba lay joxe asak la ca xolam ba moom fa lay génne asaka diko jox jaamu yalla yi allahu akbar kabira waatu zakata hmm? la ilaha illallah koko di alal alal pire waye koko di wurus wurus pire koko jox dotu ñak dépasse dotu kay mukk asaka ay xol bu génnee koko jox dotu ñak dépasse dotu kaya dotu ñak lum lek dotu ñak lum nan waatu zakata waxtasimu mooy leen billaay ci yàlla huwa yàlla mawlaakum mooy seen borom fa niama baax na al mawla borom ba yàlla la wa niama baax na an nasiru ki la ñu dimbale te moo di yàlla yàlla na yàlla def jàmm <laughs> fatiha salatul fatiha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 yàlla yàlla nangu lépp.